bokk ak yow bi lay eh, jotaay comme ni ma ko annoncé léegi léegi rek ci eh, ndorteel bi bi lay waxtaan dinañ ko eh, door rek féministe bi di wuyoo suru Gabrielle Kane moom nag ab mandat d'arrêt international nanu daal di visé ci kawam ci mbir moomu nag dafa daal di réagir daal di si yëg ci li nga xam ne moo di ay kàddu la féministe et présidente de l'association appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits nu gën ko xam ci APROFEV un La jeune femme connue euh, pour son euh, militantisme est visée par plusieurs plaintes. L'ancienne défenseur d'Adissar a réagi sur les réseaux sociaux à toute l'information sur le mandat d'arrêt me concernant et qui circule est vraie. Épargnez-moi donc les fausses émotions des rapaces, s'il vous plaît. Si la prison est la récompense de mes combats de femmes, de mères, jurées avec euh, une immense fierté pour ce que j'ai fait je ne regrette rien et mille fois je euh, recommencerai elle a également adressé un message cinglant aux journalistes pour les postes de journalistes investigation euh, qui pensaient au buzz du siècle circuler il n'y a rien à voir fils de La militante a conclu son message avec euh, détermination en attendant que euh, cela soit clair aujourd'hui. Euh, plus que jamais, je ne céderai pas, je ne soumettrai pas et je n'abdiquerai pas. Mes chutes, ce n'est qu'à cheval et je me remets toujours en selle de suite. moom moo après li nga xam ne nag euh, moom mooy boobule mandat d'arrêt international ci euh, ki nga xam ni moo di féministe bi di woy suru euh, Gabrielle Kane mhm. dafa daal di réagir moom mi nga xam ni moom moo jiitee association bi nu duppee appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits moom lu gën ko ràññeele bu baax a baax si ñi nga xam tey jii ñoom ñoo doon défendre kii di Adji Raby Sarr ci boobule coow moom nag daal dinay dikkaat di ñu xamal ni rek boobule xibaar la foofee ci li nga xam nag moo di ci postam nan ko daal di euh, épargner si li nga xam nag moo di émission yoo xam tey ji ñenn ci ay sénégalais am nañ ko jëmale ko ci moom moom nag jàpp bu fekkee prison mooy euh, récompense liggéey bi nga xam ni euh, mi ngi ko doon amal moom amul benn yoon njàqare euh, pour rek daal di dem ci boobule kaso moom nag mi ngi yëkkati ay kàddu jagleel ko ñi nga xam ne nag ñoo di journaliste yi yi nga xam tey ji daanaka ab mbirum buzz nañu daal di wut comme ni mu ko duppee dem na sax ba yëkkati ab kàddu gu ñaaw teg ko ci li nga xam nag moo di ndoddu taskatu xibaar yi alors tey ji nan nga mën jàngatee plainte yi nga xam ni plainte yu bëri la yu la ci ndoddu Gabriel kan ba finalement nu mujjee lancé li nga xam nag moo di ab mandat d'arrêt waaw euh, bon balaa may wax ci réaction am damay wax ci fee bi c'est-à-dire euh, loo xamante ne nii euh, mbiru privé la nañu xam ne mbiru privé la léegi mm-hmm. moom bu fekkee ne dafa am dafa am yeneen jafe-jafe yoo xam ne am na ko ak wàllu yoon ba ñu lancer ab mandat d'arrêt contre moom je pense que loolu c'est que parfois. Euh, il faut que yooyu tam ñu mën ràññee su ma toogee fii tey di di wax yenn sujet yoo xam ne dafa laale ak réew mi. Uh-huh. bokkut ak loo xamante ne mbiru privé la ci diggante ñaari nit wala diggante benn nit ak yeneen ak yeneen. Uh-huh. tey jii euh, su ñu waxee ci détournement par exemple bu euh, deniers publics c'est des choses qui intéressent euh, ku nekk ci biir réew mi. donc ci loolu peut-être mën nga ci xuus euh, am noo noo xam ne ni mën nga ko ci waxee mais par rapport ak quelque chose de privé yaakaar naa ne comme tout citoyen comme man comme yow comme keneen ak keneen ni ku ci nekk di amee jafe-jafe ak yoon mhm. noonu la amee jafe-jafe ak yoon et je pense que sur ce plan la amuñu peut-être luñ ci mën a développer mhm. euh, justice justice la bu fekkee ne dafa am loo xam ne daf ko def te teguwut ci yoon loolu yaakaar naa ne justice moom moo ciy mhm. euh, lu jëm ci moom franchement c'est vrai que lu bëri jaar na fi affaire Adji Sarr position bu mu si amoon ku mel ni man d'accord ma ci ak yeneen ak yeneen mais je pense que war nañu mën di def la part des choses bu fekkee ne moom dafa def loo xam ne ni tegul ci yoon te si man xaw ma exactement de de quoi il s'agit bu fekkee ne dafa am njuumte lu mu def wala leneen leneen loo xam ne lu ñu koy toppee la loolu justice moom moo chargé wu ci ci ci gérer loolu. Mhm. quant à réaction bi mu def euh, parfois itam nañu il faut il yi di comprendre que les sénégalais nekkuñu fii xëy suba rek di lijjanti ay nu Gabriel euh, kan def ak c'est-à-dire c'est pas notre problème quoi. Mhm. parce que soo xoolee yenn réaction yi c'est comme si euh, moom c'est une personne boo xam ne moom moo nekk centre du monde quoi que mhm. ñun fan la Gabriel lu muy def. c'est pas notre yàlla ngay ngay dem ci kaso mais am na loo xam ne nii mook at dañoo ànd justice am na loo xam ne nii daf ciy def liggéeyam donc euh, nañu mën def en tout cas la part des choses mhm. su dee affaire privé la affaire privé la moom na ko dem lijjanti sans que vraiment ay tudd réew meek wax victimisation à chaque fois yooyu dafay am. donc pour man waaw loolu c'est-à-dire c'est son problème quoi. Mhm. man ñi ñiy dem sax di lijjanti yooyu bañ leen si yàq yooyu ñoo tooñ parfois. Mhm. a un pays à construire. un pays à construire nga bëgg ñëw taxaw duñu wax ay Gabriel jàpp nañ ko geneen ak geneen hmm. elle n'a qu'à gérer son problème quoi ah, mais après réaction yi boo ko defee xam nga hmm. dafay mel ni ñun dañoo nekk chaque jour di xëy suba di lijjanti lu Gabriel def ak lu Gabriel deful alors que loolu hmm. ça nous intéresse pas franchement mais mais aussi dafa mel ni euh, genre yi dafa nekk mbir yoo xam ne dañ ko ko yàgg a toppee wax ko musul am li nga xam ne mi moo na du am li Euh, on veut on veut un pays juste. Mhm. dëkk bu juste. mooy ki nga xamante ni da ngaa tegu ci yoon kenn du la inquiété mais képp koo xam ne nii wàcc nga yoon ñu teg la ci yoon loolu mooy réew mu juste ak ku mu mën a dal c'est-à-dire man bëgguma sax ñu ñu euh, mbir mi ñu kii la kii kee la kii kee la gis nga mhm. euh, discours bi la def la dernière fois mhm. ci ci ci conférence bi pour man loolu moom moo am solo mooy dans un pays maanaam yoon du xàmmee kii Gabriel la tudd ak kii kan la sant ak kii si laa la ak kii keneen ak keneen la c'est-à-dire koo mën a doon ak loo mën a doon ci réew mi mooy yow mi doon jàppale Adji Sarr barki démb ak ki doon euh, défendre Ousmane Sonko bërki dem pour man mhm. loolu moom moo ci am solo mooy justice boo xamante ne nii euh, dafay leer citoyen yëpp que képp koo xam ne nii euh, tooñ nga wala def nga lu warut ñu yóbbu la mhm. ci kanamu yoon léegi nag si la man mun ma am problème ak si la ba pare bëgg jël mbir mi lié ko bëgg si dëxëñ Sénégalais yëpp pour mhm. dire ñun dañ dañ maa def nangam ak ñiy def non c'est-à-dire yemale ko say problème bopp la ko et que nga gérer ko lu si war a am am si le reste la vie continue ñun on a un pays à construire et ñu focus ci loolu parce jàpp naa ne moom moo gën a am solo et que euh, mbiru privé. Mhm. ñu bàyyi ko ña moo dóor suñu alal loolu nag kenn mënu ma see ma doo si wax. loolu moom suñu mbiru bopp ah. problème la boo xam ne moom ak yoon la naka dem mhm. lijjanti moom ak yoon. exactement alors moomoo ci wàllum yoon boobu nga wax si ni des ba tey ndax gis nga junj nga ko sax sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko dafa amoon ay réaction yoo xam ni daanaka ñenn ci ay magistrat mi ngi ci am démb waxtaanee nan ko tey mhm. nag dañuy ñëw ñëwaat euh, ci euh, kàddu yi nga xam ni euh, Mademba Gueye yëkkati na ko di ñu xamal ni justice bi moom daanaka Sénégal fii justice bu indépendant lañu am ndax chaque jour ku fi am li nga xam ne nag moo di problème daanaka boo fa demee dinañu lijjanti sa sa sa sa mbir foofu la ci wàllu yoon. Mm-hmm. moom nag lu muy daal di xaar mooy nu améliorer li nga xam nag moo di image yu justice bi donc si wàllum image boobu il faut que def si li nga xam nag moo di benn taxaw seetlu parce que bu fekkee image bi rafetul donc boo nu moytuwul rek boobu la indépendance dañ koy mettre entre entre guillemets nan nga mën jàngatee aussi kàddu yi nga xam ni kii di ma euh, Mademba Gueye nekk euh, ab magistrat daal na ko yëkkati mhm. fële ca ca Mbour waaw da da xam nga dafa am attaque am contribution man mhm. dama jàpp ne moom li mu def contribution la mais am na mhm. ñoo xam ne li ñuy def attaque la cest à euh, tey jii li mu wax kenn mënu si ñàkk d' accord ak moom. Mhm. justice su réew bi dañoo war a changer xar bi si logique boobu lañ nekk léegi nag changer xar bi. il faut mhm. ñu xam ban justice lañu la ñu jóge ak ci ban justice la ñu bëgg a dem. loolu suñ ko comprendre dinañ xam yan baa la ñu a mën a teg. Mhm. dañoo jóge ci justice boo xamante ne justice su euh, Kumba am nday la ak.